yaa xayra day fil fil baydi wal it di leen gërëm ci woote ci ñëwal ñëwal ko wax ñëwal ñëwal sant di leen gërëm sant yi nag kilifa yii toog ci sama kanam sëriñ Cheikh Fatim sëriñ Saam sëriñ Cheikh Ami ak seen i rakk ñoom ñëpp ak seen doom yi fi teew ak seen jigéen ndax ñoom ñëpp gis ngeen jëf ji seen jëf ji ñu def te yemuñu ca loola ndax lu gën a bari lépp lu ne lu ne nu nekk ca nan ca war a nekke ci doxin wan ca war a doxee jëf jën ca war a def ak soññee ban ca war a def ci mbooloo kon na nga leen di sant bu baax ci loolu di leen gërëm te xam ni lool rek mooy li am solo gis nañ jëf ji bu baax gis nan it ni ngeen bennoo bu baax gis nañ fi ngeen teg bokk gi gis nañ fi ngeen teg kilifteef gi gis ngeen fi ngeen teg suñu kàddu gis nañ nit ngeen warmaale suñu jëmm te jëmmi sëñ Tuubaa ak sëñ Rijaal rek tax kon fu mu toll ñu ngi leen di ñaanal sama borom doon leen tawfeex doon leen xeewal kenn doon leen sutura doon leen jàmm yëkkatiku saa yore bu baax bu bu bu daj bu daj kapp fépp ñu leen di sant bu baax di sant nag mboolem daayira Ahlul Rijaal yi bu nekk ci réew mi ak bu nekk bitim réew ñu ngi góor ak jigéen ma nga ndaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax xam nañ ne lëggéeyal Sëñ Tuubaa ñor na leen te loolu rek noonu mooy loolu ñor ndax àdduna bi dafa doy waar li ci nekk bari lool li ci nuru lu lu jëm fenn te jëmul fenn bari lool lay yëngu mel ni dara nga fa te dara néew fa bari lool waaye ndokk loola ma ne ci si yàlla suñ tubaa sàmmee ba musal leen ci yéen man damaa xamut lu xew ba jamono ji léegi lu bari gis nga nit ñi nit ñi bañante xaw ma lu xew ba jamono ji nit ñi nit ñi yàqalante xaw ma lu xew ba nit ñi nit ñi iñaanante lan la lu xew lu xew lu mu damaa defin xanaa nit lu xol ba wow wow lu xol ba tuuti tuuti lu xol ba tilim tilim tilim tilim tilim xanaa war naa mën a fexe ba ko ci yàlla ak yonente bi sëñ Tuubaa xanaa bu la tër lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot war na man junni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bis bu set subaa ngoon nit ki loolu bu ko tëë xanaa war na man salaatu ala nabi suba ngoon loolu bu ko tëë fukki téeméer bi xanaa fukk war na koo man ci bis bi suba ak ngoon loolu bu ko tëë nag li gën a gaaw te gën bu jant fenkee balaa so xanaa xelam war naa mën a nit Sëñ Tuubaa loolu mooy li gën a gaaw te gën a wér kon nun foofa lañ nekk ci aw doxin nan góor bu baax te xam ne li jóg di yàq bari na ndax bari ñoo xam ne kat ay njub lañ na ay nit ñu dooyee di lañ ay ay kàccoor lañ mm-hmm. te saa su ne dañ lay wax ka jëm fenn di ko rattax ay baat ak di ko rattaxi kàddu ngir nga bañ a xemmeem ngir mbiram ngir bëgg ko gàllankoor te teg ko ci bakkan képp ak iñaan dëgg la de bakkan ak iñaan rek nga hmm? suñ tubaa lim nu fàggul suñ tubaa lim daj ngir ñun mm-hmm. bari na lool war nañ koo jombut suñ képp ku nu yaakaar nga sëñ Tuubaa te bëgg a dund googu dund gu ñaaw hmm. fexeel rek ba sa xel di dem bis set sëñ sëñ Tuubaa xol bu woo day mujj nooy fexeel sa xel di dem ci sëñ Tuubaa bis bu set dëgg la xol bu bu xat bi day mujj yaa fexeel sa xel di dem ci sëñ Tuubaa xol tilim bi day mujj set wecc waaye leneen lu dul lool hmm. ay caaxaan ak yi dëgg ak kàcc rek la Sëñ Tuubaa rek ay dëgg lu la nit mën a wax lu la nit mën a wan fu la nit mën a jëme Sëñ Tuubaa rek ay dëgg dëgg la Sëñ Tuubaa képp ay dëgg yàgg fi te wér yàgg fi te wér sek nan maase góor góorlu defaraat suñu tëri bi defaraat suñuy diggante te xam ni adduna si yii nu nekk am na ñu ne fi jiitu woon anañu tey ñu ngi leen di ñaanal ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu ëllëg dañ ñuy ñaanal bu boobaa nañ fexe suñu wayu rafet bokk jullit yi bokk taalibe yi nan dollee góorgóorlu nan dollee góorgóorlu bu baax nan dollee góorgóorlu ci sunu jëf jëflante nan dollee góorgóorlu ci sunu doxin nan dollee góorgóorlu ci sunu jaxasoo kenn ku ne fas yéene seetal sa digg ak sa morom yéen a ngi nii toog a ngi nii toog daaw nëga ni daaw ba nëga ni ren kenn xam mënta waat duur ci sa kër ci sa loxo ni lu ma fi jaamu yàlla nangu na kenn mënta toog waat ne li ma fi tooñ yàlla jéggal na ma kenn mënta toog waat ne sama diggante ak sama nawle tooñ yi ma fi tooñ jéggal nañ ma nit nag bu ëmpalee noonu boppam mm-hmm. war naa waajal boppam ci lu bari mm-hmm. léegi caaxaan yi bari na de mm-hmm. nit ñi bon yi bari na de nit ñu iñaan ñi bari na de nit ñu soxor ñi bari na de nit ñu sew ñi bari na de waaye nit ku tilimee ku mel noonu nag saa su ne mu lay tegal nit ku baax nit nit ku baax naa ko weddi nit ku baax gi te gëm ma man ku bon loolu rekk fi ne loolu rekk fi ne weddil ku baax yi te jëm yaa nga jëm ci yàlla jëm ci sëñ Tuubaa di liggéey parce que bu ne ñu sànni la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaye muñ te gore te dem rek dem rek dem rek man de ahlu rajaal su ma sañoon hmm. sama jëmm ji dinaa dox doxaale mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa hmm. ma hmm. dox doxaale mboolem ku yaakaar sëñ yàlla nañ ko fekkee na gër yi déwét gën ngaa rafetu fekkee ñëpp wute kenn bañ a manqué ñëpp wér kenn bañ a wér bi ñëpp am kenn bañ a ñàkk sunu xol sedd na sunu xel dal na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu